Californie ñëpp xam nañ ko ci réew mi. kon nit ñi gën a xamee mooy di saaga. waaye nag saaga moom damay wax ne man balaa saaga di ma metti mooy mu leer ma ne boo ma saagaa dana am fu mu takk ci man foofu moom dana ma métti. waaye doom fu mu takk ci man. boo mënee dolli dollil. Euh, Gabriel ñu xam ko man Gabriel dama mës a màndu ci moom waaye gënaat naa màndu ci moom. ndax gis naa ay dons yu ñuy def. Mhm. ñu jox la ay lal nga jël ko yóbbu ko ci ay hôpitaux. Mhm. yóbbu ko ci kilifa diine yi. Mhm. ñun amuñu lu dul suñuy kilifa man boog. ku ma leen fonkal ma fonk leen. ku ma leen fonkalul yàq sama dàll yi laa yemale. sama dàll yi sax ñoo lay gën. kon kooku li ma koy conseil mooy moom déjà fan yi ci gannaaw rek nit ñi commencé nañ ko di ko apprécier di saluer son image. kon il n'a qu'à elle n'a qu'à mm-hmm. mu bañ ko salier mm-hmm. ci ay détails mm-hmm. avec ce qu'il ne vaut la peine jaru ko et je l'encourage fort ah maa koy encouragé bu baax a baax euh, quant à aussi muy nit ko nga xam ne ko am conviction la tey tamit xam ñii di mbuboo diine te fekk diine lañuy ñuy mbuboo mais ci suuf la ñuy def lu ñaaw la lu luy gàkkal diine la muy defaan loolu déjà yi nga xam ne dañuy nekk ci gannaaw diine di ko mbuboo di di saltel di def lu bon di def lu ñaaw mu leen di mu leen di mu leen di dévoiler di leen feeñal nit ñi moo tax nit ñi bëgguñ ko leen di wax dëgg boo leen waxee dëgg rek dañ ngay mujj noono saan adu ndimaa jahil doomu aadama lu mu xamut rek daf koy daf koy noono kon muy mbir boo xam ne te aussi ay nit bu ñu yàggee ànd kenn ku ci nekk am na loo xam ci sa morom man dama ne ku ma xam ki ma yàgg ànd du parce que bis bu ma xuloo moom mu weer ma ma weer ko jaru ko. Mhm. Ahmed Cissé. Mhm. Euh, quelqu'un du bon nga xam ne wax dëgg fa yàlla ces derniers temps si man je vois un autre Ahmed Cissé. Mhm. et bien aussi mu continuer ci li mu doon def di ñaax nit ñi di leen yar. si Ahmed Cissé am na ñoo xam ne moo leen jox wird ci ay loxoom. am na ñoo xam ne moo leen tarbiya ci ay loxoom. na xool ci ñooñu. nga xam ne lu mu bon bon defar na leen na xool ci ñooñu mhm. bu xoolee ci ñooñu rek dana am kersa bu dox si diggante ak ñoom. Mhm. ñu leen dindi nuyu bu baax mbokki internet yi ñuy seetaan fii ci réew mi ak ci bitim réew rawatina yéen waa sit bii di people 221 di leen tatagal di leen wax leen sax wa sahlan wa marhaban bikum ci seen bërëb ci seen makkaan. salaamaaleykum. Euh, fi may njëkkee mooy eh, démb naqar am fii ci Sénégal bu ne naqar nag dañ ciy jiital yi ñi nga xam ne yéen ay kilifa diine kilifa aada yi. alhamdulilah comme ni nga ko waxee euh, du fi du fi gan du fi du fi du fi du fi lu betteel loolu loon li nga xam ne miin nañ ko waaye saa su ne nag dafay gën di bees ci ñun. ndax dafay dal ci ay jëmm yoo xam ne fogee wuñ leen ko woon. Mhm. dañuy yaakaar ni def fii des. waaye damay wax ne bu taxoon baax rek mooy tax nit ki du dem yonent bi salaa du dem. Mhm. ndax moo gën a baax ñëpp. Mhm. waaye nag ku baax des fi dafay gën a baax. jëmm ji nga xamante ni dem na muy Cheikh Abdourahman Mbacke bu Daaru Musti. di jëmm joo xam ne jëmmi wilaayatu la. su fekkee dangay laaj lan mooy waliw. soo gisee jëmm jooju rek gis nga jëmmi waliw bu dee da ngay laaj lan mooy mbaax soo gisee jëmm jooju gis nga jëmmi mbaa mm-hmm. bu dee da ngay laaj lan mooy dëddu àdduna mm-hmm. boo gisee jëmm jooju gis na jëmmi dëddu àdduna mm-hmm. jëriñ na ku ko jege jëriñ na ku ko sore ñun ñeneen ci internet bi gis nañu ay ñaan ak ay mbaax yoo xam ne ay ay askar yu nuy joxe di ko baaxee jullit yi ngir ñu mën a jëriñu kon juge na fi waaye jugewu fi ndax liñ fi doon def lu baax daf fii des di continuer te loolu la yonent bi salaa salaam wax kon ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem salaamaaleykum fi may njëkkee ci wàllu liggéey bi muy ñu bari jamono ji ku jug jël say engagement ci li nga xamante ni mooy seet mhm. ku jug di seet ku jug di seet mhm. tey est-ce que nit ki bala nga koo ñaanal danga ko war a seetal ak ci yan anam ngay faral di seetee alhamdulilah euh, comme niñ ko waxee Euh, ku jug rek na dafay seet ñay seet dañoo ute xam-xam yi ñuy seetee dafa ute nañuy seetee dafa ute njëg ya ñuy seetee dafa ute euh, ñun nag seet bi ñuy seetee mooy seet bi nga xamante ni moom la fi mag yi bàyyi woon te mu nekk fi nga xam ne seet la boo nga xam ne dafa jugee koo ci yoon ci yàlla sax yàlla ko ko joxoon muy ilmul ramli muy xam-xamu ramli muy xam-xam boo xam ne dafa am seize bunt bunt bu nekk am na ci falak ba muy dox ak ci buruuj bi muy dox li nag xam-xam la ba nga xam ne gannaaw yonti yàlla Idrissa réeroon na ba ci jamono yonti yàlla Muusa ci la feeñoon bim feeñee ci jamono yonti yàlla Muusa feeñut ci Muusa waaye ci ñooñ na yi la feeñoon ñu daan ko jëfandiku di ci mën a tegtaloo di ci mën a gis xam biddéew yi ci ñaata fan la ñuy def ci seen fëlëg di ci mën a leeral na ay mbir yoo xam ne ñëwagut ba ñooñu na sukkandiku woon foofu ne na mooy yàlla ndax na dafay wax lu ñëwagut te loolu yëpp njabarkat yi àndoon ak euh, yonent yàlla euh, njabarkat yu àndoon ak firawna ñoom ñoo doon utiliser xam-xam ramli ci beneen xeet bu bokkut ak xeet bi ñu koy jëfandikoo muy xeetu zulmaaniya di ci leeral yonent di ci leeral firawna ay kiraama ak ay mbir firawna di ñëw di ko imposer ñoñam ñooñu sukkandiku ne firawna kat yàlla la ndax dafay wax lu ñëwagul. Mm-hmm. xam-xam boobu di dox di dox réer ci jamono yont eh, eh, firawna mm-hmm. mu daal di feeñaat ci jamonoy balxiis mm-hmm. eh, buur ak bar buur réer ci daal feeñ ci jamonoy buur Haaruna Rashid Haaruna Rashid jinneem gi nga xamante ni moom mooy moom mooy ak moom moo ko xamal Haaruna Rashid Haaruna Rashid moomu nag di ñëwaat jëfandikoo xam-xam boobu mooy ilmu ramli mhm. Haaruna Rasiid moom ni mu ko doon jëfandikoo uteeg ni ko aw na yi doon jëfandikoo mhm. Haaruna Rasiid daf ko doon jëfandikoo pour yombalal dund eh, eh, kii wam bi eh, xetam gi dund mhm. ndax dafay toog bu nawet jotee mu sànni tomb yi génneen fukki buntu ak ñaar fukki bunt yooyu mu di ko jural ay doom jural ay doom di ko reyal ay doom ba mu des benn buntu buntu boobu nag ci lay taxaw seet ci li nga xam ne moom mooy maïsa maïsa mooy dund mu ne ah nawet bii di ñëw kat su ngeen ci bayee dugub ci ngeen di gën a am nawet bu baax kon bu ngeen ci bay gerte bu leen ci bay mbokk bu leen ci bay bay leen ci dugub ci xam-xam nga la ko doon seete mm-hmm. mu toogaat beneen nawet bu ma ah, nawet bii kat su ngeen ci béyee dugub du baax bay leen ci mbokk mm-hmm. moom foofu la daan noonu la ko daan utiliser xam-xam bi di dem di dem di dem ba réeraat feeñaat ci Seydina Aline. karamallahu wajhuhu Seydina Aline nag. Hmm. di ko jëfandikoo pour mën cee xam yan bës ñoo baax ci xare. Hmm. bu xare taxawoon dafay naan ah bés bii kat du baax ci xare. Hmm. beneen bés buñ ko defee danañ mën erreur yi. dégg nga wax bi yonti yàlla Muhammad xamoon ne da koy jëfandikoo mu nangul ko ko ndax xam-xam la woon xam ne yàlla moo ko ilham yonti yàlla Idrissa xam-xam boobu nag di dox di dox ba yegg si ci jaamu yàlla yu xeebu yi ak ñeneen ñu mel ni moom. ma wax ne j'ai lancé un défi et je toujours lancé allez voir mes yàgg naa ko wax di ko waxati ne ci ñu ko dàkk ci Sénégal ci laa bokk wallahi laazim xam-xamu ram li laa wax mm-hmm. ñi ko dàkk ci Sénégal j'en fais partie parmi les premiers mm. te wax naa ne ñi koy weddi nañu ma woo plateau man ak ñoom ñu toog ñu seet ram li en direct la ñu seet ko en direct mm-hmm. ñi ma ko jàngal ñu ngi fii di dund ba tey kenn ku ci ne mën naa la tey yóbbu la këram ne la kii këram def naa fa fukki weer def naa fa juróomi weer def naa fa at mu di ma ko jàngal kon xa loolu mooy xam-xam mu ram li xam-xam la boo xam ne nag wax dëgg fa yàlla ci lim mën a leeral ci seet gisuma xeetu seet bu ko mën a leeral mhm. du xeetu petaaw du xeetu benn kii mhm. dafa lay wax ba wax la jour bi nga war a faatu dafa lay wax ba wax la ndeysaan euh, su su ngeen duggee sama TikTok sax da ngeen di gis ay audio hmm. de témoignage yoo nga xam ne dama ko fay dugal hmm. ay nit Thierno Mohamed Ba bu ngeen ko bindee sama TikTok da ngeen gis ay audio de témoignage yoo xam ne nit ñi dama leen di seetal hmm. ñuy confirmer ne lii may wax lu am la lu wér la tey tamit amut seet bu ko mën ci sara damay wax ne yenn saay euh, danaay seetal nit euh, gis ay mbiram jox ko ay sara ne ko def ko mu ne ma waa incha allah léegi danaa la woowaat pour ñaan lu ci yàlla. mu dem def sarax yi aaju bi faju dootuñ ñëwaat sax pour ñaan. <laughs> parce que sarax bi faj na aaju bi. Mhm. amul xam-xam bu ko mën ci sarax. Mhm. xam-xamu seet mhm. gisuma ko. amut kon moom la. ma wax ne aussi. ñii di seetee quarante mille wala soixante mille. teguñ ko fenn mënuñ ko layee ci xam-xam mënuñ ko layee ci dara. ay pexe la. ça fait des années. cinq mille cent franc laay seetee. cinq mille cent franc Mm-hmm. man rek maa ma maa ñi may joxe li may seetee ci internet. Mm-hmm. amul ku ko ñi may joxe. Mm-hmm. gis nga cent franc bu manqué juróom. duma la seetal. xam nga lu tax. cent franc bi mooy saraxu seet bi. du yokk du wàññeeku. maraichage bu fi ñëwoon loolu lay fay. Mhm. kon loolu lañ doon bayaan ci wàllu seet. ndeysaan vraiment am na solo trop li mu wax ci ilmu ramli eh. li ñu wax ne xam-xam moom da nga koy jàng ba pare doo ko toog di wax. mais toog yor sa kurus ak sa petaaw di wax rek loolu du xam-xam parce mag ma waxoon na ko utlubul ilma walaw bi Chine kon moom nag li mu ciy joxe nii dal na xel. Euh, damay ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllu bayre nga gis jamono jii ñu bari seen i mbir a ngi dëgër ba mu jaral leen ñuy génn dëkk bi dem di uti leneen te alors li ñuy uti jàpp naa ne am na fii mais ñàkk bayre ak ubbeeku moo leen téye yan leeral nga ñu mën a andil ci loolu waaw foofu itamit lu ama am solo waaye dafa am ay erreur yu ma ciy gis nit ñi. Mhm. dama koy rectifier ci ñoom. Mhm. léeg-léeg nga gis ci seen commentaire yi sax kuy wax ne su amoon bayre du woo site internet. Mhm. wala su amoon bayre nit ñi danañ ko xam. mais <laughs> yonent bi salaa salaam. yàlla joxoon na ko mboolee mi nguur. nguuru alal nguuru lépp. yonent bi bi Xadija génnee àdduna. da dox ci mbedd Màkka yi. ñëpp di ko naan ah Mouhamad kat. Mm-hmm. ay at ay weer ci gannaaw. Mm-hmm. moo gënoon am ci màkk. Mm-hmm. waaye Xadija mi ko doon financé gaañu na tey moo gën a ñàkk ci màkk. doj yi nekk ci màkk dégg loolu. di tëb. ne ko yaa Muhammad waxal sa borom ñu nekk wurus. léegi léegi ñeexal la yow. yonent bi du mooy. te pourtant mënoon na ko def. waaye est-ce que loolu mooy objectif am. sëriñ bi li gën a foor bayre la am. xam nga booy lan. sëriñ bi li gën a foor bàyyira la am xam nga mooy lan mhm. mooy xam-xam mhm. yow amoo xam-xam yow bu lijjanti li sëriñ sëriñ bi lii muy wax mhm. su ko amoon defal ko boppam day déedéet sëriñ bi ku la wax ne li gën a foor loolu la am sëriñ bi li gën a foor loolu la am mooy xam nga mooy lan sëriñ bi heure bu amee soxla soxla bi faju gis nga am na lu ko gën a foor xam nga mooy lan soxla bu faju dëgg sëriñ bi heure bu amee soxla man de wallaahi laazim aw ma musumaa am soxlaay dara. Mhm. lu dut yàlla tàggatal na ma ko. lu dut yàlla tàggatal na ma ko. Mhm. te loolu nag li la koy may. Mhm. mooy sax ci jaamu yàlla. ci tuuram yi. parce que fa lillaahi asmaawul husna fadu biha yàlla am na ay tuur woo leen ko. aduuni astajibu lakum. waaye am na yoon. kon bul wax ne sëriñ bi bu amoon bayre wala bu xamoon bayre mhm. du du defal ko boppam mhm. sëriñ bi am na leneen luy objectif am lu dul loolu lu bokkut ak bayre mhm. dépassé ne niveau boobu yow yaa ko soxla ñëwal nga wut ko bayre nag dafa am façon am na bayre mbooloo am na bayre wërsëg am na bayre alal am na bayre jigéen am na bayre nguur am na bayre tubaab am na am na waaye ñun bayre bi ñuy liggéey ñu ngi ko tuddee samsul bilaad waaw loolu for na ah, samsu bilaat xam nga mooy lan. Hmm. mooy jant dëkk yi réew yi. Hmm. bayre bi dafa amoon benn waajoo nga xam ne dafa nekkoon ci benn dëkk. dëkk bi kenn bëggu ko. Hmm. ndax ñaawaayam. ab ñàkk. gis nga nag yàlla bu la nattoo ñaar da nga lool. maa ngi ci gis sama su la yàlla nattoo ñaaw. ah ni sama pël bii. su yàlla nattoo sa pël bi. ñaaw. <laughs> Uh-huh. nattoo la ñàkk. Uh-huh. Ah, soo mënoo dee deewal de te <laughs> nga xam ne réew mi ku fi sonn ngay doon. <laughs> dëgg la <laughs> waaj nag yàlla da koo nattoo ñaaw. Mm-hmm. ak ñàkk. Mm-hmm. dëkk bi bu duggee ci boutique sax niin dañ koy naan génnal ndax boo fi duggee niin duñ ñëw. ndeysaan. benn bis moo tax mbaax rek baax. Mm-hmm. muy dox ci dëkk bi dajeeg benn wëliw yàlla bu yenu ay matt. matt yi diis lool. mu ne ko góor gi yow naaj bi tàng na di fooy dem mu ne ko fee laay dem. moo ko andil ma yenul la sa matt yi. mu yenul góor gi matt yi ba góor gi yegg si fu mu jëm mu tegal ko matt yi mu wan góor gi gannaaw dem góor gi ne kaay. Mm-hmm. yow xanaa doo doomu dëkk bi mu ne ko ankay fii laa dëkk. mu ne mm-hmm. man de dëkk bi nit ñi dem may gis tout le temps may yenn son waaye kenn mësuma wax lii. Mm-hmm. mu ne ah, waaw man de lu tax miinoo ma sax dëkk bi ñëpp may daw. ndax sama ñaawaay ak sama ñàkk. góor gi daal di koy jox secret samsu bi daal. waa ji sangu ko waaye da koo takk. Mhm. fu mu romb nit ñi di ko xool ñëpp jublu ko di daw ci moom. allahu akbar ñëpp. Mhm. kilifa yi may dégg. ci mhm. réew mi xam nañ secret boobu kilifa yi may dégg. bayre boobu laay jëfandiku. moom laay jëf ñëpp itam. man kenn du ma gis di ma bañ man. dëgg la wallaay premier jour boo may njëkk gis sopp nga ma. ndeysaan. barke Alxuraan. gis naa loolu danaa la yónnee ay vidéo yoo nga xam ne bi ma demee Maroc. dugg ci tram bi ci hmm. ci ci benn train ndeysaan nit ñi di ma di di di rëj di ma xool ba mujj gi dama dama am kersa ci sama diggante ak sama borom ndax maa ngi xam ne nii hmm. nii ñuy rëj ci sama jëmm ji du sama sabab dëgg la ndeysaan waaw kon loolu mooy bàyyi rek sam su bilaat moom la ñuy jëfandikoo waaye ay bàyyira bukkeeg ay hmm. bàyyira yi da lay sonnal te dinaa ci joxe benn tettal incha allah bu ñu demee ba ci kii bi danaa mayee benn salaatu ala nabi boo xam ne bu koy nit di jëfandikoo kenn du ko ëpp bàyyira ci benn salaatu ba nga xam ne. ci salaatu la ci salaatu ala nabi. Mhm. incha allah ndeysaan wax waxtaan bi am na solo trop <laughs> trop trop trop trop. <laughs> Euh, li ñuy wax ni li duuf ci nag bi xajul ci cin bi. Mhm. xam naa dinañ gën a indiwaat gën a defaat journée boo xam ne spécial. Mhm. Euh, lay doon gën a yaatalaat waxtaan bi. ma ñëw ci li nga xam ni lëmbee na jamono jii. muy wàllu nopp. ñu baree ngi engagé wu naan dañuy noob di noob di noob te tey. est-ce que tey noob ñëpp lañ ko war a defal ak ci yan anam la ñuy comme li nga wax nopp ñu bëriñ koy wax waaye ba tey euh, ñi ma ci xam xam nañ ma ci bu baax a baax. Mhm. ñaari nopp laay faral di jëfandikoo. Mhm. nit ñi bu ñu duggee sama TikTok. Mhm. danañu gis tegtal yi ma fay joxe. nopp bi nga xam ne maa ngi koy jëfandikoo te di ko dimbalee nit ñi ci ñaar la. benn bi ci fas la booy takk. da nga wax bi. benn bi ci meew la buñ koy def. woyal ko ba mu woy mhm. xam nga meew bu nekkee soow mhm. jóge na ci dara dem ci dara mhm. jóge na ci meew dem ci soow am na ñoo nga xam ne wax dëgg fa yàlla ñi ëpp boog soow moo leen gënal meew te xam nga ni laax bu amul soow du neex dëgg la de voilà très kay kon lii neexal mbir bi mooy soow bu soow meew bi woyee rek ba nekk soow seen diggante noonu lay mel noob la nag boo nga xam ne wax dëgg fa yàlla comme li nga wax est ce que ku ne lañ ko war a defal. surtout loolu. gis nga sëriñ su bëri li tax ñuy échec ci wàllu noob. Mhm. ñaari biddéew yu correspondre. Mhm. anaasir yi correspondre. Mhm. foofu noob mënu fa jàpp. va chercher le plus grand marabout du monde. le plus puissant. il ne pas réussir ça kenn du ko mën a réussir. kon moo tax nit ki balaa ngaa ne dangay ngay noob diggante bi xoolal nax seen biddéew yi dëppoo na. Mhm. seen tabiya yi dëppoo mhm. nga. mën koo noob. Mhm. tey am na ñoo xam ne seen noob boo ko defee ci suuf du jàpp. bu dee masalal ku jigéen ki ku góor ki moo soxla ku jigéen ki. te ku jigéen ki tabiyam safara la. nga jël noob bi gas def ko ci suuf du jàpp. bu fekkee ku ci góor ku jigéen ki moo soxla ku góor ki mhm. te ku góor ki tabiyam ngelew la mhm. nga jël noob bi def ko ci ndox du jàpp mhm. loolu dañ ko war a xam beneen bi mooy am na xaatim bi nga xam ne itamit moom mooy xaatimul rakkun xakim incha allah buñ demee fii ay après gàmmu danaa leen invité fii décortiquer leen lan mooy xaatim dans un tableau maa nga ko nit ñi xaar fii. ci people 221. maa leen jox rendez-vous boobu après. gàmmu am na solo jàngal leen lan mooy xam-xamu xaatim. Mhm. maanaam ci fanweer bunt yi ak juróom-ñeent yëpp incha mhm. allah. Mhm. ci musalasul kunt yi razal yi. dégg nga murabba muhammas musadas yëpp ba achara alfa buyut. incha allah na trop waaw kon lii mooy xeetu noob. kon nga xam nax nit ñi seen. première chose à faire xam nax seen biddew yi correspond na. seen aransir yi correspond na. nga doog sukkandiku ci loolu mën a noob mhm. kooku noob la ba nga xam ne c'est à c'est à vie mhm. dara du ko soppi mhm. noobu fas bii may wax nag fi ñu koy liggéey maanaam nit ki bu ko takkee ba pare jëfandikoo takk ko ba pare ñetti fan bu dee diggante jëkkër jabar la kooku laa koy def du ma ko def ci ay góor bu bëgg takk diggante jëkkër jabar maanaam da nga koy takk fexe sëkk ak sa soxna ñetti yoon ci semaine bi nga tekki ko fi nga koy suul nag du ma ko wax. Mhm. boo ko suulee foofu fi nga ko suul noonu kañ fa suul nam mel. Mhm. noonu lay mel ci yow. day ne mhm. nemm. nemm lay def dëggal la. jigéen yi léegi nag faaw ñu am fu ñu leen téye. parce ay tête brûlée la ñu daal. dañoo ah, caprice waaw incha <laughs> waxtaan bi neex na trop fi may ñëw. muy loo xamante ni bariwul jamono jii ñu koy laal parce que damay xam ne fa lillahi al asmaul husna hmm. euh, tey nga am turu yàlla. boo xam ni da nga ko ñeme engagé ko te jamono ji bëriwul ñoo xam ni. dañuy jëfandikoo turu yàlla lan mooy sa secret ci turu yàlla boobu. waaw turu yàlla ñi ko xam itam ci jamono bi ñu néew la. Mhm. sëñ bi à l'âge de quinze ans laa commencé gëstu xam-xami la saxaar. Hmm. moo gën a tardé sama jàng. waaw. bokk nañ ci li gën a tardel sama jàng waaye maa ngi ciy sant yàlla. sama morom ya ma bàyyoon ca jaara daara ji ñuy jàng. Mhm. tey su ma demee foofu maay faj seeni soxla. Mhm. Euh, tur yàlla ñu bari dañ koy wax waaye xamuñ ko. Mhm. parce que gis nga tur bi nga xam ne mooy jëriñ. dëgg. mooy tur bi nga xam ne xam nga lu mu tekki. mooy tur biy jëriñ. waaye tur boo nga xam ne xamoo lu mu tekki. lor la lay gën a andil ko jëriñ. Mm-hmm. parce que yàlla ba muy wax ñaan leen ma. Mm-hmm. waxul ñaan leen ma ci nawaafil wax déedéet. dafa dee mm-hmm. fa lillaahi asmaawul husna fadu biha yàlla am na ay tuur yuñ taaral. oo leen ko ci tour yooyu. tuur yooyu nag cent la. quatre-vingt-dix-neuf yi moo feeñ. yàlla sax ëppale na cent. ndax boo demee ci ci ci ci téere yu jëkk yi dañu wax ne yàlla am na trois mille tuur. tuur bu njëkk bi mhm. junni yu njëkk yi mhm. mu ko xamal jinne yi mhm. beneen junni bi mu xamal ko malaaka yi beneen junni bi mu seddale ko ci diggante tawreet injil ak zabuur ñetti téeméer ci tawreet ñetti téeméer ci injil ñetti téeméer ci zabuur téeméer ci alquranu karim mhm. quatre-vingt-dix-neuf yi mu feeñal ko mhm. cent bi mu nëbb ko jaam mhm. bu xeebu bi nag yàlla xamal na ko sànjeem bi da nga wax nag boo xamee tur yàlla faw nga xam istixaraaj nga xam lan mooy istixaraaj tur yàlla maanaam tur bi tuur bi nan la sama waa ji cameraman bu ñaaw bi ibrahima nga ne ibrahima ibrahima nga déchiffré ko alif gi benn la baa gi deux la raa gi muy 203. dégg nga xaa gi 5 la miim gi euh, yaa gi 10 la. muy 15. Euh, miim gi 40. da wax bi nga boolee loolu yëpp miim gi 40. nga boolee loolu yëpp xam lu mu la jox. forcé forcé. dana am tour yàlla bu mu correspondre. loolu mooy tur yàlla Ibrahima na ko jàpp. bu ko jàppee lum ci ñaan mu faju. waaw su boobaa boo boo boo jëlee machine calculer ma ko ma wax la ko léegi. incha allah boo ma ko calculer buñ paree ma wax la ko incha allah. da nga wax bi mhm. forcé parmi les quatre vingt dix neuf. Mhm. bu jàppul benn par exemple tey boo jëlee man Mouhamed Mouhamed Ba. Mhm. c' est quatre vingt dix neuf. da nga wax bi am na ñaari tur yàlla yoo nga xam ne boo leen boolee da lay jox quatre vingt dix neuf. naa ko tey rek soxla bu ma ci ñaan mu faju mu des di ñuy naan xam. rawxaanu tuur yàlla bi xam xudaamu tur yàlla bi tur yàlla boo gis am na deux gardiens de chef yi nga xam ne moom la yàlla dénk tur yàlla boobu ne leen yéen surveiller leen tur yàlla bi lu si waay ñaan yéen ya ngeen ko koy jox lu si waay sàkku yéen ya ku koy defal mooy rawxaan bi ak xudaam bi mm-hmm. tur yàlla boo gis am nañu am na rawxaan am na xudaam yu koy garder mm-hmm. ñoom ñooy ñooy exécuter tur yàlla bi les vœux yi nga xam ne nit ñi ñu ngi ko ciy def mm-hmm. lu mat a xam la incha allah loolu itamit. Mhm. danaa leen ci invité waat. Mhm. ngeen ñëw ñu leeral ko incha allah eh, eh, fi may jeexalee ci samay question mhm. muy jamono ji lu bari mu ngi tas ci néegu sëy yi. te man wama seet naay laab maalim naa ma gis ci ñoo xamante ni tey dem nañ ba dénk la seeni doom. ñi dem la ba tuddee leen ñi dem la ba tuddee la ay doom. à cause de impuissance sexuelle. jamono ji nag ku nekk yaa ngi ciy wax. gis naa ci ku ci mel ni. Euh, sama xarit Ahmed Cissé. moom nee moo ci nee na amu ci moroom. tey <laughs> yan leeral nga indi ci loolu. waaw comme euh, laaj bu laaj bu am solo bi nga laaj ci sama mbokku taalibe boobu muy Cheikh Ahmed Cissé. Euh, quelqu'un du ba nga xam ne wax dëgg fa yàlla ces derniers temps si man je vois un autre Ahmed Cissé. et bien aussi mu continuer ci li doon def di ñaax nit ñi di leen yar Cheikh Ahmed Cissé. am na ñoo xam ne moo leen jox wird ci ay loxoom am na ñoo xam ne moo leen tarbiya ci ay loxoom na xool ci ñooñu nga xam ne lu mu bon bon defar na leen na xool ci ñooñu bu xoolee ci ñooñu rek dana am kersa bu dox si diggante ak ñoom e, dégg naa ko nag muy wax ci wàllu garab àndala <laughs> buri nag garab bu baax la macha allah mm-hmm. waaye garab bi waa Côte d'Ivoire ko xam. macha allah moom ma déggee xam na li may wax. Euh, kantaan nag wàllu impuissance taxaw naan maa fi mën a maa kii ku mën ku ne nit ñi xam nañ ko ñooy jël si say garab xam nañ ko. man samay garab fu ne lay dem ci àdduna bi fu ne. gis nga kii. ku ko xam ku ne. xam nga ko ci man. mooy kawteef. la tudd le miracle la solution. kii saay kii kii góor bu ko jël da nga yëg ni lii nga jël moom uteg naa la nga daan jël wala lii nga jël mbir a ngi ci dafay yokk kattanu góor dafay permettre nga am érection bu yàgg xam nga impuissance ñu bëriñ koy wax waaye xamuñ ko dafa am type d'impuissance yu bokkut am na ko xam ne il n'est pas impuissant il est faible am na ko xam ne impuissant wul faiblewul mais dafa am problème trouble érectile mm-hmm. des fois mu yëg boppam des fois du yëg boppam mm-hmm. góor bu la ëppale sperme maniw moo la gën a mën a yàgg ci sëy mm-hmm. laaj ma lu tax laaj ma lu tax euh, xam-xam nag laa lay wax science tey dañuy gën ci wàllu asraar ñëw ci wàllu wàllu wàllu tabib gis nga booy def rapport góor ci biir awram ñaari siddit la am mm-hmm. sidditu prostate ak siddit bi nga xamante ni foofu la sow bi di jaar mm-hmm. lu tax sooy def rapport lu sa awra jug jug doo mën a sow ci biir vasine ku jigéen ki mm-hmm. lu tax jaaxal naa la jamono bi nga xamante ni awra bi dugg na ci vasine bi pénétré na ko sidditu sow bi dafay fàtt sidditu prostate bi mooy ibbeeku sidit prostate boobu nag. Mhm. da ngay gis ne dafa am deret buy daw ci cerveau yi. Mhm. moo tax une fois que rek cerveau bi bu xalaatee awra. Mhm. wala mu gis awra da gis ne sidit bi dafay jug taxaw. parce que deret bi mooy dow moo tax yëf yi des fois psychologie la. am na ñoo xam ne dañoo faible ci psychologie. moo tax dañuy gaaw jëm teer wala pour ñu am érection dafay jafe. Mhm. parce que ils sont faibles de psychologie. Mhm. ñoo ñu ñu ñëwee fii toog jàkkaarloog man wax ma seen feebar dama leen di déglu parce que aw ma machine bu la mën a diagnostiquer. Mhm. ci ngay wax ci laa mën a xam lu la dal. ma la sax jox garab am na ñoo xam du ma leen jox garab. psychologiquement laa leen di faj. kon lu nit war a mën a xam la. léegi su ko defee euh, bi nga xamante ni xalaat nga loolu walla gis nga lu mel ni loolu. deret bi dafay daw. day jugee ko ci cardiaque bi ci poumon bi. Mhm. tasaare daw jaar ci ven yi ñëw ci li nga xam ne mooy séddu prostate bi. Mhm. fees foofu bu feesee mu mën a am érection. Mhm. waaye loolu du fi yàgg. léegi gis sperme bi day ñëw renforcer renforcer ko. mooy waral mooy funki. bu sperme bi renforcer awra bi mu funki. nga mën a am érection bu normal bu yàgg. Mm-hmm. léegi su dee nag sa dafa faible. Mm-hmm. wala dafa oyof wala mm-hmm. dafa néew. pour nga am érection bu yàgg dafay jafe wala boo ko amee itam da ngay gaaw a yegg fa nga jëm. kon su boobaa. nit ki bu ñëwee dañu koy jox lii. mooy kawteef bii nga gis. la solution. waaw la solution. joxaale ko le miracle. pour mu mën a produire sperme bu bëri ci moom. Mhm. ak quantité sperme bu doy. Mhm. kii sax kii rek dafay faj impuissance ak éjaculation précoce kii rek daf koy faj. Mhm. kon su ab waaj bu ñaaw taxawee fee. na moom moo ci mën. daf may def reetaan. <laughs> parce nag wax dëgg yàlla. xam nañu garab bi xam nañ ko. xam nañ ko am nañu ñu ñuy jaar fii ci man ñu bëri di wax quoi mais sant alhamdulilah. Euh, wàllu faj wàllu impuissance comme ni ma dafa am ay façon dafa am koo xam ne il n'est pas impuissant mais il est faible. am na hmm. koo xam ne il n'est pas faible impuissant. Hmm. am na koo xam ne trouble érectile la am. Hmm. am na koo xam ne éjaculation précoce la am am na koo xam ne problème spermatozoïde wala oligospermie am na koo xam ne yii yëpp amu ko. il est bon mais dafa faible. psychologiquement. moom moom buy gis jigéen rek. pare na waaw kooku <laughs> dafa am leneen lu koy faj mm-hmm. am na ñoo xam ne nag problème masturbation moo leen yóbbee loolu yëpp mm-hmm. masturbation boobu aussi bu koy nit di def te mënu koo bàyyi na ñëw ci man mm-hmm. am na saafara boo xam ne bu ma ko bindelee mu ngi ci alquran karim ayatul tahrim yi ne ci alquran mu boole kooku suufu bàmbeel dégg di ko naan daf koy bàyyi carrément. dootul sax ñëwaat ci xelam. Mhm. moo xam rab moo koy def loo. Mhm. wala sago boppam la topp di ko ko def. Mhm. jërëjëf. voilà mu ngi noonu waxtaan wi neex na trop euh, lu duuf ci nag bi xajul ci cin bi euh, mu nekkoon ki nga xamante ni mooy Thierno Mohamed Ba. Ah, euh, daanaka li ñu meen ci waxtu sax jeex na. mais fi may jeexalee ci actualité fan ñu gis li nga xam ne mooy. ki nga xam ne mooy Kaliphone Sall. génn daanaka di wili li nga xamante ni mooy ki nga xamante ni mooy Gabriel. Hmm. Euh, en que citoyen naka nga jàngatee loolu. waaw damay wax ne foofu du ci sori parce que Californie xam nañ ko ci réew mi. Hmm. quelqu'un la boo xam ne li ko nit ñi gën a xamee mooy di saaga. Hmm. waaye nag saaga moom damay wax ne man balaa saaga di ma metti mooy mu leer ma ne boo ma saagaa dana am fu mu takk ci man foofu moom dana ma métti. waaye doom fu mu takk ci man boo mënee dolli dolli euh, Gabriel ñu xam ko man Gabriel dama mësa màndu ci moom waaye gënaat naa màndu ci moom ndax gis naa ay don yu ñuy def ñu jox la ay lal nga jël ko yóbbu ko ci ay hôpitaux yóbbu ko ci kilifa diine yi ñun amuñu lu dul suñuy kilifa man bokk ku ma leen fonkal ma fonk leen ku ma leen fonkalul yàgg sama dàll yi laa yemale. Mhm. sama dàll yi sax ñoo lay gën. Mhm. kon kooku li ma koy conseil mhm. mooy moom déjà fan yi ci gannaaw ak nit ñi commencé nañ ko di ko apprécier di saluer son image. kon il n'a qu'à elle n'a qu'à maintenir ça. mu bañ ko saluer. ci ay détay avec ce qu'il ne pas la peine. jaru ko. et je l'encourage fort ah. maa ngi koy encouragé bu baax a baax. quant euh, aussi muy nit ko nga xam ne ku am conviction la. te tamit xam ñii di mbuboo diine. te fekk diine la ñuy mbuboo mais ci suuf la ñuy def lu ñaaw la. luy gàkkal diine la. muy defaan loolu. déjà yi nga xam ne dañuy nekk ci gannaaw diine. di ko mbuboo di di saltel di def lu bon di def lu ñaaw. mu leen di mu leen mu leen di dévoiler di leen feeñal. Hmm. nit ñi moo tax nit ñi bëgguñ ko leen di wax dëgg. Hmm. boo leen waxee dëgg rek dañ lay mujj noonu saan adu ndimaa jaxin. Hmm. doomu aadama lu mu xamut rek daf koy daf koy noonu. kon muy mbir boo xam ne te aussi ay nit bu ñu yàggee ànd kenn ku ci nekk am na loo xam ci sa morom. man dama ne ku ma xam ki ma yàgg ànd. du ma xulóog moom mu. parce que bis bu ma xulóog moom mu weer ma ma weer ko jaru ko. Mm-hmm. bu bu dañuy maslaxa rek. Mm-hmm. waaw kon loolu moo am solo daal. Mm-hmm. alhamdulilah incha allah euh, voilà yi daanaka liñ ñu mayoon ci waxtu jeex na. Euh, vraiment doyaluñ ci waxtaan bi nag. mais comme ni nga waxee rek dañuy defaat spécial boo xam ne après gàmm dañuy ñëw. def ay waxtaan yu am solo. Euh, mu ngi noonu Thierno ah, Mohamed Bala numéro téléphone bi dina daw foofu noonu ci sunu rési ah, ñu ngi leen di ziar. di leen jox dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221. jërë ngeen jëf. alhamdulilah hmm. macha allah sant hmm. yàlla bu baax. di hmm. leen gërëm yéen tamit di ndokkeel jullit yi di ndokkeel àdduna bi yëpp ci weer bi ñu ne muy weer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. akrim bi saxaril arabi ibri akrim bi saxaril arabi ibri la saxaril aj akrim bi saxaril ajami ibri la saxaril arabi akrim bi ardil xarami mawlidu xayrul insaan bayt yi benn borom xam-xam ko bindi ne weer saa bu teeroo boo ko waxee balaa déwén weer bee teeru si yàlla dana la defal ay ubbeeku yu rëy rëy ci barke bi salaa salaam man nag gis naa ko def naa ko defati ko gis résultat bi kon maa ngi leen koy baaxee salaamaaleykum wa rahmatulah